waaw xale nga sa yoon des na lu ba tey ñëw na Kër Mbaye Fall certifié xale muy kenn si surtout moom Asou Diankh <laughs> laa nuyu naa la. sang bi ñu ngi lay fay ziar naa la Idi. naka tey. alhamdulilah baala nga nuyoo. waa dañuy sant yàlla julli ci yonent bi. sant sama sëriñ Maulana Cheikh Ibrahima Niass. sant sama wasila Baye Cheikh Mamour di la nuyu di nuyu sama caméraman bu ñaawul bi xalilu la waa di bëgge ñëpp di bëgge tamit fii nga ma fekk tey muy kër goo xamante nii dañ may jàppale bu baax ci làmb di leen nuyu samay mbokk séeréer lañ ñoo bokk benn dëkk comprendre nga ñoom ñu ngi dëkk ñu ngi ñun ñëpp ñu ngi dëkk Jobaas waa naa leen foogale séeréer mais ñoom bokkuñu séeréer am naa dama leen futum na rek ñu ne ma mii nga <laughs> yaa gën a xam ñoom saafeen bila ñoom boo ne leen futum ñu ne mii nga. waa di ñaanal sama waajur bu jigéen fi mu tëdd gënal ko ñaan suuf woyof si kawam sama papa yàlla bàyyi ko fi di gërëm kër Mbay Faal ñëpp di sant waa Jobaas sama dëkk Seeseen Babak Mbomboy Saasar xam nga di bëggee tund boobu yëpp tund Jobaas bi yëpp daal waaw. Eh. laaj bi nga bëggee jógee si combat rek gis ñu fa fu mu nekkoon. waaw maa ni nii. nañ mbër de loolu màgg daan. daa mel ni war nga ko sa combat waaw maa ngi toog samay tàng di entraîner nekk samay coach ku ci mel ni grand Ibou Tons Pape Kane comprendre nga Omar Fall di gërëm tamit sama waa écrit yëpp yëpp yëpp yëpp waaw. maa nga jóge sa diggante confiance. wàccaay bi nan la woon te confiance ñëpp dañ ko fee bàyyi woon nga jóg nga yow yaa gënoon naqari ut adversaire jour boobu. waaw combat bi mun naa ne pare naaw trois mois booy xool dama dem ba ay coono daf ma dikkal ci làmb ji. non adversaire yi ñëwoon du du woon dama njëkk a am benn adversaire moom laa doon préparé jarul may wax turam. non du wax ko. waaw Zé la Zé Baye Fall. yàlla def ñu dem ba ci biir mu ne dafa tawat di ko ñaanal yàlla may ko tan mu mujj delloo avance bi ñu dem ba ci biir ma am vieux après moom it am na lu mu wax balaa mu ji mujjul am euh, confiance mu ngi jël sama avance si euh, vingt jours comprendre nga ma koy ma koy encouragé naan ko làmb noonu la xëy na da nga daje koo xamante ne nii xamoo ko. <laughs> confiance confiance bu ëpp taxoon mu jël. waa man làmb dama cee toog dafa sibul quoi. moom moo jaayul mais man maa ngi jaay. da toog ci làmb ni. <laughs> au séeréer refub nag doomu séeréer laa. ñoom jaayuñu de. Hmm. mais man maa ngi jaay ñoom li ñuy jàmba baaxul. barki maama si jànka. <laughs> idi ah. lu làmb ji gën di dem. Hmm. ñuy gën di ñuy gën di xam kan mooy Bruce. bu boobu moo nekkoon sama sixième combat. sama cinquième victoire benn défaite sama première combat laa daanu par décision arbitre laa daanu. Euh, mu nekk cere càq bu Thiès. <laughs> cere càq benn bu ambulance. bëre ba làmp yi lëndëm mu dóor ma ba gisatuma. arbitre di tas làmb ji may jooy. waaw da la ba càq la da koy ay sentiment la mbëggeel kese la ay jooy rek la <laughs> mais ba ma ci jógee dama maye Kumba Gawlo bi. Ah. nee na bu coow li bëree na nga kuul. waaw fi mu ne nii patak organisé. barki maam su jàgga <laughs> nga si ca jàq nga jël ko ba nga wala sekk ma ne ay sentiment la ay jooy rek la billaay wax dañoo bëre ba mu lëndëm mu dóor ma ba may bëgg a dee di tas làmb ji may jooy boobu gisatu naan la moo ñu tas ko biñ ko tasee dama ñëw maa ngi koy wax ci benn interview bi ma yegsee si suba si munu ma gis damay ñandu sax sama bëri di fat maa nekk sama papa Thier si pharmacie bi pour mu jënal ma ay garab man maa tourné rek da seetu bi ma noo kii du man damaa soppaliku <laughs> non idi lu deewaar laa lay ma jógee fa nag xam nga ci laa doon mbër xanaa bi ngay dem di jël cere bi wow koŋŋu ndox nga lii mbaa jàmm la auzu billahi mina seytaani rajiim dama tiit barki Alxuraan lu ne daj naa ko barki Alxuraan bi potu ndox rek. waaw mais alhamdulilah ci loolu noonu quoi parce que mun naa ne moom moo ñu def mbër. comprendre nga di ñaan yàlla yàlla na yem foofu noonu. mais idi li ma la wax rek li ñuy gën di dem gars di gën di xam waaw bu ma la rombee nag di dem di nga ne waa nu mu demee nii waaye bu demee fële na le waaw yow sim nga <laughs> yow doo seer. nga jóge si confiance. fi ñu toll nii boobu ak léegi. gars yi lu ñu la wax at laay fan la jëm. waaw promoteurs yi ñu may contacter. maa ngi déglu yéen yéen a ngi ci làmb comprendre nga wasaare ku ne xam na ko jéggi na frontière yi xam nga àdduna yëpp xam nañ leen xam nañ man ñi ma war a bëreel quoi. waaye fi ñu nga war a bëreel. war nga mën a diw at diw ñoo su may naataangoo na ñëw ñu bëre. waaw loolu am na fëgala bu ngor. dafa jógee barki démb ci combat ay naataango lañ buñ ma gënul palmarès gënuma leen palmarès ay morom la ñu ñoo tolloo comprendre nga ñang baalo man ak moom man ak moom làmb la. yaa ngi wàllum ñëpp bàyyi. barki Seydina Mohamed làmb la. au euh, sodu bi daan caadu euh, fora mana moom làmb la samay morom rek laa rey tudduma benn paa. lii li nga def nii est-ce que ñi nga tudd nii. bu avance bi ñëwoon automatiquement da nga ko ma nekkul caméra yi tàkk ngay ma jox ko ñoom bookaat ñoom Cheikh. ama ñoom Ibu ñu laal ci naar bi. Eh. comprendre nga. gis nga booy ay code lañ dañoo yomba jàpp. Oh. waaw ay code 1 dañoo yomb a jàpp eh. te doomu naar yaa ngi nii toog. <laughs> naar a <laughs> a fay. non lu neex laa lay wax. billaay seex da ciy xëy suba wër ba mu leer mu naan fonde tëddaat <laughs> wala cereñ meew noonu leeraa la. bu bi ñëwee ma jënd ci repas bu bëri jox ko bookar ne ko joxal laadum yi eh. waaw. ban avance moo la gënal si ñetti ñooñu waa fëgg parce que man ni mu def barki Demba Ndiaye doomu jàmbur. Idi dama bëgg jàmbaar te boo ñi ma fi tudd ay jàmbaar lañ cité ma benn paa bëre ma benn paa xale la damay bëre samay morom ba dégg daal yi ma doog a bëre paa yi. sa ñaari combat say morom nga bëre sa sa Thiès te noonu la demee ñooñu duñu woon samay samay business bi may bëre sa APKS moo loolu noonu dañ ne ma àdduna dañ ne ma kii bu la jàppee da lay rey. ñëpp dañ ne woon xanaa laay bi muy jël ki demee ne puis mu daw song ma ma jàppantoog moom dóor ko trois cent soixante mu foog foofu la ma lokal <laughs> duma la sax fen <laughs> da koy nga dee. <laughs> lii doy na waar quoi Idi. loo nga cité nga ne sa digganteeg fëgg la. Mhm. lu nga bëgg fëgg la. mii nga xam ne wax rek ngay def te xam nga mbër yëpp xam nga ne man ak Feugeula làmb la. Feugeula dama koo xam bu baax a baax. stade lay ñëw takk ay kurusam ay business nekk fa di prix bam Feugeula ñëwal ñu bëre. maa la dàkk fecc maa la dàkk bëre. ah Feugeula moom day day fecc day bëre. laay laa du combat bi da kaa jaral mu demoon Maroc ñëw yokk doole ju wóor namm loxo yi. làmb ji passé gisoon nga mu demee affaire problème adversaire yi noonu moo tax man voyage yu mais Maroc laa waroon préparer sama combat. ah moom fa la pare dafa ñëw rek def benn voyage. sooy mu ngi may dégg dafa pare woon pour dagg billet ne ma ñëw la entraîné mais kombaay yi ama rek tey ñu ne la adversaire bi ñu dem ba ji ba ji karam mu ne bàyyi na mais man mi di wax yow su ma bëggee dem Maroc damay dem préparer bu mu bëggee dem. waaw su ma bëggul tamit ma toog mooy loolu noonu. yaa yaa ma gën a xam. kon daal fi ñu toll su ma déggee sa wax la Brésil avance Feugeula moo ko gënal fi ñu toll nii lu mu mënta am wala moo ko traîné la. avance sama morom yi Feugeula au oh, sodu comprendre nga rakub marle bi nu mu tuddati sax. réparé non fi ñu toll nii xam naa ne doo ko jël. la moo tax du jël. ñëpp dañ ko fee bàyyi. parce que. Eh, fan yii daa yokk doole sa doole. waaw nga. maa gën a bëgg doole. barki Seydina Mohamed. français nga doo xeex. waaw <laughs> nga doo xeex. làmb ji daa ko ñu maa xeex de mais boo mënee bëre xeex da lay sonal. kon fi ñu toll pare nga pour bëre réparé. préparé ñaawul ñu bëre promoteur yi bëgg nañ sama combat samay moroom ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy am lu ñuy xalaat quoi. léegi jàkkaarloog ñoom nga wax leen nga wax say morom. préparé njang baalo comprendre nga osodu ah fëgala bu ngor kàddu yooyu laa cité samay moroom lañ ñoo ñëw ñu bëre. te rawante woo leen dara si lamb luy loolu six combats laa def cinq victoire benn défaite décision arbitre maa leen gën a néew la défaite ëpp ñu ma victoire. nañ ñëw ñu bëre te bu ma jógee Kër Mbaye Fall dañuy jug doomu dëkk bi laa Kër Mbaye Fall jamono ji idi dañoo bëgg làmb di leen gën a woo di leen gën a ñaax wax leen que ñun làmb lañ bëgg nañ ñu gën a jàppale comprendre nga ku ci mel ni suñu maire bi Abdou Karim Sall di ko wax mu gën ñoo jàppale di ñu dimbale ci ay billets loolu dañ koy bëgg parce que ñun mbëri fii nii ay talent rek a fi nekk ama suñu écrit fii Kër Mbaye Fall ba jéggi tali ba mbaaw xam nga di féliciter Zambala ci victoire bi mu jugee naan ko yaay suñu grand yaay suñu mag xam nga doxalal ñu ngi sa ginnaaw quoi ñoom mbaaw lañ dëkke ñun ñu ngi fii mais cent pour cent bi lépp benn la quoi. di wax gars nañ ci gën a jàpp nañ ci gën a jàpp. waaw waaw waaw noonu la demee. tudd tudd gi tudd Jobaas gi. waa Jobaas sama village waw di leen wax que seen doom a ngi nii xam nga ñu ciy gën di jàpp tamit ñaan yi maa koy gis barki arxuraan. li nga naan pour tax mën a waa mais yow bu ma làkkee séeréer fii toj. léegi ñiy seetaan noonu lañ bëgg si yow. non duñ ko dégg. laa ilaha illa duñ ko maanaam neex na neex boo xamante ni am na men ko be Mansour. Hmm. su may su may làkk séeréer. day kontaan barki alxuraan damay. léegi gars yi loolu la boobu naa la ko vocal. non <laughs> mbokk internet yi fi ñu toll nii comme da dëkk tund Thiès dëkk Jobaas. te ku xam Jobaas xam ne ay doomu séeréer dafa dëkk léegi wax la ak ñoom. non séeréer yi may làkk moo xóot. <laughs> barki alxuraan bu ma loolu wax gars yi dégg nañ ko. laay bu ma ko làkkee caméra yi toj. <laughs> mais Zou bébé Zou bébé chaque sama interview dama lay faat di la tudd. ni ngay yi ci man gis naa ko. waaw di ziar tamit waa ñoojoor yëpp gis naa taxaw bi nu ciy jàppee barki arxuraan noonu la demee waaye di barki arxuraan ñëpp dañ ciy taxaw mooy loolu bu mu amee combat dañ may jàppal benn tànk bi rek ma tëye ba ca des ak a neex yomb na <laughs> loolu yomb na laay laa loolu dafa neex loolu loolu dafa garaaw noonu laa yow toog ak yow toog ak yow nii rek moo dax subal tabaski waa mais Idi àdduna lépp teraanga la sauf <laughs> na mooy faral di ko wax nee nañ. doom <laughs> àdduna lépp. teraanga la. sauf dof buy dóore. <laughs> xam nga euh, reporter bu jantal toog nii sa wet. caméraman bu bu ah, bu bu jantal jàkkaarlu nii. mbër mu jantal toog ma ñëw sama kër tey famille Ndione. xam nga mafia bi toog di ma di ma filmer mais fa ma neex. <laughs> waaw mais noonu la demee bu ñu waxee day neex bu ñu bëree mu neex bu ñu feccee mu neex àdduna bëgg nañ ñu macha allah di wax auzu billahi mina seytaani rajim <laughs> yàlla nañu yàlla defal jàmm ko. laaj si boo doon waxee si làmb lan nga bëgg ñu yokk ko lan nga bëgg ñu wàññi ko si biir géew gi. ci biir géew gi. am na biteel yoo xam ne ñu ngi koy tere mais dafa neex. waaw xoolal Ama Baldé 10 millions ba ay waay bu ko laalee ba daw ñu yi lii mais loolu xama làmb folklore da cee bokk quoi am na yoo xam ne dafa bokk ci làmb te ñu ngi koy dindi mais ñu ngi ziar suñu Papa Bira am loo xam ne ñeme wuñ ko wax <laughs> toj boo ko waxee moo làmb laa bëgg te bëgguma ku ne ma eh <laughs> yaa yaa bëgg a laay comme li olof Ndiaye nee na. li duuf si nag li xajul si cind te gi jël si cind coo topp la. lu leer lu leer looy tàggatu. waa dañuy tënk. waa di leen wax ñu ñëw bëre. comprendre nga man seen morom laa seen lépp laa léegi da ngay dangay dangay dangay ngay da ngay dañ lay proposer euh, mbër sax ay ay ay SFM di woote comprendre nga naan baxam am na gaalaaj ak mën na bëre nii. kon alhamdulilah ba nengee ñu ma gis nga làmb ji boo nengee ñëwee duñ bëreeg yow. kenn du ñu ma maa ngi nii jantal ba yàqu. <laughs> boo ma gisee ne mbëru milieu la onze billahi mina <laughs> laay xam naa ne doyaloo comprendre nga moo dañ koy dagg léegi dañuy sant dañuy sant ñi ñuy jàppale ñëpp waaw kër gi ma ne di leen sant ku ci mel ni mbay grand Mbaye xama grand Malick Ndiassé Mouha centre bu mag bi Babacar xama di bëgg ñëpp booy sew yi xama gars fi nekk nii waaw waa naar bi Ibu xama Bokar Cheikh Faye Mansour Aliou Sène di gërëm sama papa ci ci Ndiaye jeune transitaire bi ci port jooy ma dara ndax moom quoi lii génneel leen ma ko téléfon téléphone mu jox ma xaalis mu jox ma Bokar Ndiaye di jéggi saay woo ma ne ma mbër avant naa loo reeree bu ma ko gisee dama tiit ay jolof cëkkal laa ci la <laughs> maa leen gën a dof foofu xam li ma di bëggee Bas sama doomu ndey comprendre di bëggee Bas waa di ko gën a bëggee sooyu Amar di ko bëggee borom Maroc Bibi Amar borom Maroc comprendre nga Medoune borom Italie sama tonton Abdou Aw Sarr sama yaay Mami Ndiaye sama yaay Faat Amar du ma ko fàtte mu ko waaw parce que mooy loolu quoi di bëgg sama yaay Agnes di bëgg doomam ajuma comprendre nga affaire yi boo limee dafa juum da ngay juum mbay cuun di ko bëgg bu baax baax sama toma laay Bruce Lee waaw di ko wax ne waaw làmb ji namu nañ la war nga tooyal xaftaan bi comprendre nga coombaay sama sama sama gaan la dafa am ci lu mu jugee comprendre nga manaan ko mbër jàmbaar nga gaynde nga da bëgg nga ñëwaat suuraat tànk yi nekk ci doomu Kër Mbaye Fall dafa daanu yaagul dara dara di ko wax ko ne làmb noonu la comprendre nga day métti rek mais suuf si ñëpp a koy ñam mais dañuy ñaan yàlla yàlla na yéex Eric Ndiago bi maa ngi ñaanal ndam comprendre nga di gërëm waa garage kalandoo bi ay see manko zimenga gësu lay njaay président aw ma fay comprendre nga Mansour borom États-Unis maa lay ziar maa lay bëggee gis naa ni nga ciy jàppee quoi les borom pièces détachées yi maa lay bëggee waaw jasire tukulóor bi aw ma sa fay bi ñu xamante yàggul mais maa ngi gis zéro yi <laughs> yàlla na sa jàmm yàgg <laughs> kooku baa ma def ci code waaw moom moom mu may mu may jaabale bu baax baax di bëggee xaritamkat yi sama artiste Malick Faye naan dafa am bés xamali ma la euh, le 4 ravin soirée bi na ko ñëpp jàppale Malick Faye bu Pikine comprendre nga di bëgg àdduna ñëpp ku ma limul lekk barke alxuraan dama juum billaahi wallaahi Aliou Ndiaye ñoo easy bi maa leen di bëgg bu baax mafia 37 déggal bi comprendre nga mafia na jolli bi ay see déggoo maa di bëgg xamali ma la ASC bu bees bi <laughs> dëkkandoo maa leen di bëggee ku ci mel ni ay Samba Top gars yi maa di ziar di bëggee àdduna yëpp sama mag aada waa gis naa boisson sedd yi may jox yàlla sa jàmm yàgg fi mu ne nii noo ma gisee. oh oh digganteeg man ak moom ay doomu bàjjal lañ gars yi xamuñu lool nag quoi. waaw àdduna yëpp ñu ngi naan ma kii ma leen kooku sama jumeau la. Zimo la ñuy wax di ko ñaanal jàmm ama di bëggee faa borom technopole di ko bëggee bu baax ama li ma la di bëggee gladiatrice yëpp waaw di bëggee àdduna daal man daal xaw ma sax lu may wax. waaw mbër bu bëggee àdduna du si boole alaaxira mais alaaxira dafa neex. c'est buñ ne ngeen bëggee àdduna da ngeen si boole alaaxira mais ala yow alaaxira dafa waay lu ko dàq dafa am. ah mais ñun xam nañ alaxira ay ay ay jàmbaar lañ waaw barki maa ma si yow doo seer si nga may waxee laa di la bëggewaat bu baax a baax di la ziarat joxaat sa wàcc waay bu wér rek di wax moom làmba ngi noonu sa kanam sa ñi ngi fi tudd ñëpp say naataango lañ waaye nag ñu ngi jëm le huit mm-hmm. Fallou Ndiaye Ndiaye production diggante Bilazer Thiatou Yoff oh, combat njar ndéem la waaye dafa am combat yu ñu ci suuf ci suuf diggante far bu jar at boo job deux waaye cey aada booy bawal at arobase rak si doomu jalaw nee naa leen le huit du yomb bu ñu fa jugee dañuy dem le vingt deux janvier Liss Ndiago Ardo Khalil doxalal ñuy dem ba vingt deux janvier